waaw ah, YouTube bi booy def direct ni paramétrage bi nga ci war a def ak façon direct boo mun ci def même euh, yoon bi ñu war a jaar pour paramétrer nga war a respecter te loolu ci vidéo bi lañ koy wane yeneen yi si des nag dañuy ñëw rek wan la direct bi ni ñu koy defee li si ëpp ci OBS lay nekk ci YouTube ba duñ fa nekkaat di paramétrer kon vidéo bi paramétrage yi bàyyi ci xel bu baax a baax. Euh, vidéo time nag comme niñ la wax maanaam live bu gën a simple ci live yi lañ lay wan ni ñu koy defee muy lan muy ni ngay defee live utiliser li nga xam ne mooy sa caméra ordinateur muy webcam bi. wala su fekkee webcam bi dafa am euh, problème soit ordinateur bi amul webcam wala webcam bi yàqu wala webcam bi ñàkk a leer vidéo bii di ñëw dinañ la wan nan ngay utiliser sa téléphone pour mu nekk webcam mais vidéo tey nag li ñu lay wan directement nan ngay utiliser sa webcam pour def live mais comme ni ñu la ko waxee li ci ëpp solo nag du live bi mais paramétrage YouTube li la pour def direct voilà léegi boo ubbee sa OBS nii li ngay njëkk def comme nag nga bàyyi xel. ñetti OBS yi ñu fi def nii xam nga bu nekk waxoon nañ la comme yaa ngi topp formation bu nekk waxoon nañ la pour lan la bii nekk OBS direct bi moom la ñu ubbi parce que live lañ bëgg a def léegi comme live lañ bëgg def moom lañu ñu ubbi léegi nag dinañ bàyyi sel bi moom mu paramétrer boppam pour live paramétrage yi paramétrage yi nga xam ne mënut a ñàkk moom lañ def ko rek vidéo bi passé mais paramétrage yi YouTube yi OBS bokk war a defal boppam pour YouTube bi dëppook ordinateur bi loolu euh, dañuy bàyyi logiciel bi def ko mooy gën a xam moom li mu détecté ci ordinateur bi nan la war a comporté woo comprendre nga voilà loolu nag pour ñu def ko fii la ñëw euh, si kaw la ñuy dem outil fii la ñuy ñëw buñ cliqué outil ñu ñëw cliqué fii assistance de configuration automatique voilà boo cliqué fii lim ñu njëkk wan ci kaw option par défaut bi su fekkee yow dangay ngay utiliser logiciel bi pour def ay capture euh, enregistrement ak direct en même temps mais direct nga jiital léegi-léegi rek ngay def enregistrement mais li sëpp ngay def mun nga ko bàyyi par défaut fii mu nekk su fekkee da ngay utiliser logiciel bi pour di enregistrer ay vidéo kase yow defoo live comme man ni ma daan def bu njëkk ba utiliser naa logiciel OBS bi lu mat un an yoo xam ni vidéo yi ma dugal si Galsen Tube bi yu njëkk yëpp OBS bi laa filmer sama écran parce que day def loolu tamit boobaa fii ngay ñëw cliquer fii mu optimiser li nga am ne mooy logiciel pour filmer écran boobaa comme ni ngay def ñëw cliquer fii soo cliquer fii nga def lan après cliquer comme même chose la li ngay cliquer fii dañ la ko léegi su fekkee nag live rek nga ko nga ko bëgg a doyee mun nga clique fii je n'utilise que la caméra virtuelle comprendre nga léegi après nga def fii suivant soo defee suivant léegi xoola qualité yi nga xamante ni moom lañ yaa ngi fàttali ko vidéo bi passé paramétrage yi ñu defoon dañoo wax nay enristre full HD su ko su ko enristre ba pare nay génnee full HD loolu lañ defoon waaw 30 images par seconde waaw mu mu fàtte lu ñu liñ defoon ñu bàyyi ko noonu appliqué ko les paramètres nga. appliqué na paramètres yooyu pour bu ñuy def suñu live léegi lan la ñuy def dañuy dem ubbi suñu YouTube mais bala ñoo ubbi suñu YouTube parce que ñaari yoon nga am pour jëli sa clé streaming pour def direct benn bi ci looyu logiciel bi lañ koy defee benn bi ci YouTube ngay dem directement cliquer ko bi ñuy defee ci looyu logiciel bi lañ lay njëkk a wan da ngay ñëw fii nga cliquer fii paramètres soo cliquer paramètres nga ñëw fii ñu def stream flux nga cliquer ko. soo cliquer Strewfly fii ak lu fi mun munti nekk nga cliquer ko indi YouTube RTMPS gis nga mun nga fee fekk Twitch lu cëpp sa boo par defo mun nga fee fekk Twitch léegi dangay ngay cliquer ak boo fi mun munti fekk nag Facebook ak boo fi mun ti fekk yow choisiral YouTube RTMPS su dee da nga cliquer fii Twitch si nekk fi nga cliquer xool gisoo fi YouTube RTMPS cliquer fii afficher tout soo cliquer afficher tout mu indi la yëpp yi fi nekk yëpp su boobaa. di nga gis YouTube RTMPS comprendre nga voilà boobaa nga cliqué ko nga xool YouTube Y gi mu ngi nii YouTube RTMPS moo nekk ci suuf nga cliqué ko soo ko cliqué bi si des dina sélectionné muy primary YouTube ingest test serveur par défaut bii mooy bi ñu war a defee rek baax na jarul sange donte boo cliqué fii dina am yeneen yu génn waane bàyyil par defo bii léegi nag am na lu mu ñëw fi OBS mu ne lan mu ne moo li laal na wax sànq mën nañ ko defee fii mën nga ko dem defee tam ci YouTube muy lañ benn compte YouTube ci euh, OBS bi OBS nag lii la demandé par défaut moom la santaane mooy nga cliquer fii mu yóbbu la ci YouTube nga dem dugal li nga xamante ni moom mooy euh, benn chaine par exemple bu ñu ko cliquer woon ñu wan la ñu cliquer ko gis nga daf ñuy yóbbu ci YouTube demandé luñ comme fii ñetti compte ñoo fi connecté mu demandé ñu benn compte par exemple bu ñu defee Galsen Tube bi gis nga ñu continuer suñ continuer nii day bëgguñu ko relier mais dañuy relier compte bi ñun nag bëgguñu def option boobu jël euh, YouTube bi relier ko ak ak obes mu nekk permission nekkul loolu lañ bëgg a def comme nekkul loolu lañ bëgg def dañ koy tëj mais dañu ñëwaat fi nga koy jaar léegi ñu annuler lan lañ bëgg def dañoo bëgg a utiliser une clé de stream waaw version avancée bi lañ bëgg def ñu cliquer fii soo cliquer fii di nga trois points yi nga fi def du fi nekk voilà pour yow boo cliquer première fois du am dara day vide voilà fii day vide du am dara. léegi lan la ñuy demandé ñu dugal créer stream créer stream bi mu ñuy demandé kat nee nañu soo cliquer fii di nga ko mën a dem récupérer yi directement maanaam sa sa navigateur bi ubbeeku compte YouTube bi fa connecté mo navigateur par défaut bi nga xam loo cliquer rek boobay ubbeeku su dee Firefox nga def par défaut mooy ubbeeku bu dee euh, Microsoft Edge nga def muy Internet Explorer wala nga def euh, Google Chrome boo ci mun def mooy ubbeeku par défaut sa ordinateur compte bi fa connecté lay dem ubbi ji ubbi fa ñuy defee direct pour nga dem jëli clé bi dugal ko voilà mun nga ko defee fii ci logiciel bi mën nga dem tam comme ni ñu wax sànq ci YouTube léegi ñu cliquer fii pour wan la bu dee ci logiciel bi fii ngay cliquer récupérer soo cliquer récupérer day dem détecter chaîne YouTube bi connecté ci Google bi mu dem ubbi studio bi ñuy defee direct directement lay ubbi wax la pour nga jël clé bi ñëw dugal ko ci YouTube studio ji nga fii la lay indil. léegi nag su dee da ngaa ñëwoon yow directement dugg si euh, YouTube pour jëlal ko sa bopp lañ lay woon nag léegi fii ñu tëj ko bañ a jël clé bi tëj ko donte fii la ñuy ñëwaat nag voilà léegi ñu wàññeeku léegi nag bëggu ñoo def loolu xam nga cliqué nañ ñu fa war nañ dem na dem yóbbu nañu ci YouTube pour ñu jëli clé bi luñ jaar foofu dañoo bëgg a jëlee lu suñu bopp clé bi lu ñuy def dañuy dem cliqué suñu Google dem dugg suñu chaîne YouTube bu ñu duggee suñu chaîne YouTube ñu ñëw cliqué logo bi mel ni kuy dugal vidéo soo ko cliquer indil na la pour nga dugal vidéo indil na la ci suuf pour nga passer au direct ñu cliquer direct soo cliquer direct mu indil la studio bi ñuy defee direct même chose comme fi ñu OBS yóbbu woon voilà lii lañ ci bëggoon woon la yoon yi yoon ñu ngi ko mën a jaare comprendre ñu xaar mu chargé chargé na léegi bi mu ñu ko indilee léegi daf ñu demandé ñu cliquer li nga xam ne mooy ñu jël clé stream bi dem kole ko obees léegi dañuy jël clé bi dem collé ko OBS ñëwaat nag configurer fii ci YouTube loolu la configuration bi nag après ngeen teewlu ko bu baax a baax léegi clé bii nag nga bàyyi xel su fekkee daam loo doon def ba cliquer fii ci bët bi mu feeñ wala dara ci nga doon def direct mu feeñ wala nga doon def enregistrement écran wala yaa xam daal loo doon def mais clé bi am na fu mu feeñ da ngay cliquer fii réinitialiser soo cliquer dina la créer beneen clé bu bees clé bi fi nekkoon day annulé wu mu defal la bu bees lu tax parce que clé su ko nit amee su ma ko defoon day nii bët bi ma clé woon bët bi clé bi day feeñ. yow soo jëlee clé bi nga bind ko nga dem si si si si si si YouTube bi ngay def direct mais nga dugal maanaam clé streaming bi ci oobee ci sa ordinateur yow direct day daw sama chaîne comprendre nga. léegi nag buy daw sama chaîne bu fekkee man damaa def par défaut sama chaîne lépp public la day daw publiquement day daw nit ñi di ko gis su fekkee damaa def nag kuy def direct direct ba mu munti lancé na def privé ba ma def ko public boobaa dina daw sama chaîne mais kenn du ko gis te chaîne yu bëri xam nga par défaut dañuy bàyyi public ce qui fait que nit bu amee sa clé streaming mën na dawal live ci sa chaîne YouTube saa mu connecté sa chaîne YouTube loolu ñu bàyyi ko xel waaw solo léegi nag clé bi lañ bëgg a lu ñuy def fii ñu bind copier rek ngay cliquer su la neex dem nga cliquer bët bi bu dee defoo capture écran nga cliquer bët bi clé bi feeñ nga sélectionné ko clic droit copier mais fii YouTube dala ko yombal pour sécuriser clé bi mu yombal na ko fii nga cliquer copier ñu cliquer copier clé bi dong nag lañ fiy copier ci sam nii lañ koy bàyyi clé bi la ñuy copier muy fii ci kaw comprendre bu ñu ko copier lu ñuy def ñu réduire bi ñëwaat ci suñu logiciel OBS coller ko fii voilà clic droit collé gis nga clé bi collé na mais ba léegi ñu nga dafa nëbbu pour ñu bañ nit ñi bañ ko gis comprendre nga léegi comme collé na fii lan la ñuy def wala bala ñuy dem def enregistré ñu xool fii suuf mi ngi ñu demandé fii ignorer les paramètres recommandés du serveur de streaming maanaam serveur streaming bi daf ñu par selon ordinateur bi li mu détecté si ordinateur bi ak connexion internet bi daf lay wax lii la lii la la suggéré ni si diggante bi lay dawal affaire yi maanaam débit maximum bi. defal na la diggante cinquante et mille mille euh, kilobits la ba diggante cent soixante kilobits voilà comprendre nga léegi su fekkee nag yow buggoo buggoo mu dawal paramètres yi say paramétrage bopp nga bëgg def mën nga cliquer ignorer nga ignorer paramétrage yi mais dañ koy bàyyi nii par défaut voilà léegi lu ñuy def ñu cliquer fii appliquer bu ñu cliquer appliquer pour clé bi ñu dugal cliquer fii ok léegi suñu clé enregistré wu na comprendre nga léegi nag bala ñoo lancer direct bu ñu lancer direct nii rek dara du daw dañuy dem nag YouTube configurer léegi suñu studio voilà ñu dem YouTube léegi dañuy ñëw fii wan la toujours boo duggee fii war a def rek première fois cliquer fii modifier pour def fi say propre paramètres nga cliquer fi modifier soo cliquer modifier da lay indil version comme booy dugal vidéo ci YouTube option bi mu lay indil étape par étape yi nga war a remplir booy dugal vidéo la lay indil fii. parce que direct bi mi ngi daw direct mais vidéo la nga bàyyi ko xel vidéo buy daw YouTube la donte direct lay daw kon danga nga kaa war a paramétrer optimiser ko pour mu normal ci YouTube su ñu doon recherche gis ko su ko su suñ ko dawalee ba pare bu nekkee vidéo tamit muy mën a feeñ ci résultat recherche yi ak yëpp danga ko war a def premièrement mooy titre bi direct bi buy daw si lan ngay def direct nga bind titre bi fii nii si kaw waaw comme ni ngay bind titre vidéo titre direct nga bind ko description bi nekk ci suuf direct bi nga bind ko li nga fi bëgg a def yow nga bind ko voilà ñu wàcc direct bi soo ko lancé da nga bëgg mu nekk privé maanaam bu dee da ngay testé nga def privé su dee da nga bëgg a lancé mu daw public directement nga def fii cliquer fii nga def ko public su la neexee tam mun nga ko def réservé au membre su fekkee sa chaîne dafa am souscription am ñu abonné di fay parweer vidéo bii ngay dugal direct ñoom dong la concerné nga cliquer réservé aux membres su ko fee booy def direct membre yi abonné sa canal di fay ñi abonné sa kanaal canal nekkul ñi cliquer bouton abonné déedéet mooy ñiy cliquer bouton rejoindre di cotiser di fay moo xam téeméer wala ñaar téeméer par weer ci bouton rejoindre bi ci communauté bi souscrire ci chaîne bi di fay ñooñu ñoo kese ñoo ko mën seetaan comprendre soo ko defee non répertorié day daw direct mais kenn du ko gis ku dul koo jël lien bi envoyé ko ko whatsapp wala facebook wala feneen koo partage lien bi kese moo ko mën gis soo defee privé nag defal na la option yow kese yaa ko mën a gis ak ki nga xamante ni maanaam ajouté nga ko koo bëgg mu gis ko da ngay cliquer fii nga ajouté email am soo e email am bi mu ubbee youtube kooku moom bu connecté youtube am dina gis direct bi sinon du ko mën a gis option yi ñoo fi am léegi nag ñun direct bi comme dañu lay wan rek test la bëgguñu mu jàll chaîne bi ñu def ko privé comprendre bu doon dañoo bëgg mu jàll bu ñuy dawal direct ñëpp di ko gis public lañ koy def comprendre que voilà su la neex tam mën nga doon def noo répertorier ba testé gis ni lépp normal na nga ñëw dindi ko def ko public comprendre que voilà lu si mën di am fii pour loolu lay jëriñ comme ça léegi ñu ñëw au lieu ñu koy def noo répertorier war feneen ñu ñëw def ko privé comprendre que léegi ban moo si topp restriction amul benn restriction voilà catégorie nga choisir ban euh, catégorie nga bëgg mu nekk maanaam bu defee nii da lay indil ban catégorie xam nga chaîne bi par défaut dañ ko def science ak technologie moo tax catégorie boobu la nekk mais direct bi ñuy def su doon par exemple ci affaire comédie la wala leneen mën nañoo cliquer fii ñu choisir loo xam dafa jëm ci comédie voilà divertissement ñu choisir divertissement wala humour comprendre nga voilà léegi ci suuf miniature bi nga bëgg ku gis direct te cliquer gu ko miniature bi muy affiché fii nga koy dugale comme ni ngay dugale miniature ci vidéo nga cliquer fii dugal miniature comprendre nga playlist bi nga bëgg mu nekk fa fii ngay cliquer sélectionner bu dee bii par exemple OBS lañ bëgg mu nekk ci playlist OBS fii la ñuy cliquer sélectionner def enregistrer dugg na ci playlist OBS fii mu indil la audience bi mooy loi COPPA bi toujours daa war a nekk sinon il n'est pas conçu pour les enfants parce que boo ko defee wii bi YouTube du si dawal parce que da yaa ko vidéo bi pour xale yi la da koy bàyyi ci noo bi mooy pour xale yi pour ñëpp la comprendre nga léegi soo wàccee suum la cette diffusion contient une communication commerciale telle qu'un placement de produit ou parrainage ou un autre type maanaam lii dafa la bëgg wax su fekkee euh, direct bii ngay def kat dafa am ay publicité yoo ciy dawal suba nga kose fii wax ko waa YouTube su dee benn publicité daw si nga bàyyi nii comprendre suñu wàccee suuf mu def chapitre automatique chapitre automatique mooy presque defoon nañ ci vidéo mooy soo jëlee benn vidéo nga wax ci ay sujet yu bari bokkul vidéo bi gudd nga bëgg nit di ko seetaan te kiy seetaan bañu seetaan lépp mu su ko ci dara intéressé mu ñëw foofu rek clique xam moo xam loolu fu mu toll clique seetaan ko nga def ko chapitre automatique chapitrage bu ko defee day dagg vidéo bi par étape par étape étape bu ne dina ko bind ci suuf description bi ne la diggante fii ba fii kat ci lii lay wax diggante fii ba fii ci lii lay wax loolu mooy chapitre automatique voilà léegi su fekkee bi si topp la muy euh, lieu bi nga autoriser euh, la mention des lieux visibles maanaam les lieux apparaissent dans la description de la vidéo maanaam pour vidéo yi vidéo bi fi nga xamante ni mooy bërëb yi nga xamante ni fa lañ ko defaree wala yu demee noonu mën nay feeñ suuf vidéo bu la neexee nga décoché ko du feeñ mais taxul mu am importance noonu voilà fii tag yi la xam nga ko yaa ngi def vidéo YouTube xam nga tag moo clé nga war dugal sa vidéo boo wàccee suuf fii tam mooy par défaut réglage yi ñuy réglé fii langue sous-titre bi su fekkee vidéo bi dafay am sous-titre automatique sous nag soo ko defee ci langue yi nga dañ koo codifié lay am sous normal nga fii langue bi nga xamante ni maanaam mooy langue diffusion bi comprendre nga fii langue bi nga xamante ni mooy titre ak euh, description vidéo bi ak titre vidéo bi ci ban langue nga ko bind bu dee titre yi da ko bind en wolof da ngay sélectionné wolof bu dee da nga ko def français nga def français comprendre nga voilà fii vidéo bi ci wolof lañ ko def mais description bi ci français moo tax ñu séparé ko nii bu doon nag des titre bi lañ ko bind ci wolof fii wolof tam la ñuy sélectionné voilà fii euh, certificat sous titrage mooy da lay bëgg xam vidéo bi ndax daw na États-Unis wala daw fa ak yooyu ci kaw fii ngay cliquer ne vidéo bi musul daw direct bi musul daw États-Unis wala vidéo bu daw États-Unis voilà. fii mu defal la date ak lieu enregistrement bi fii bu dee da ko bëgg choisir mais par défaut amul importance bu la neexee mën nga ni boo bëggee choisir date fii vidéo bi kañ nga ko defar ak fan lañ ko defaree voilà. fii mu nekk licence de diffusion bi maanaam da bëgg dugal vidéo bi YouTube ñëpp mën ci am accès wala sa vidéo bopp la kenn mënu ci am accès. fi ngay cliquer bu dee danga ko bëgg a maye vidéo bi comme neex mën na koo copier dugal ko seenam nga def fii Creative Commons su dee nag da nga ko bëgg bàyyi pour yow dong nga def YouTube standard comprendre intégration fii mooy ndax nit ñi am nañ autorisation jël vidéo bi di ko def seen ay site internet waaw copier euh, code integration bi def ko seen ay site soo décoché fii nit ñi duñ kenn du ko mën a copier pour def ko site internet boo ko bàyyi ni par défaut ni ko YouTube def nit ñi mën na ko mais loolu lu baax la parce que dañ lay defal promotion rek voilà loolu moom bokkul ak copier vidéo sa vidéo bi ko nit jëlee def ko si site internet am vidéo bi ci YouTube la def muy feeñ foofu ku ko cliquer su génnee site bi day ñëw si sa chaîne waaw te loolu promotion la lay defal moo tax jarul dindi ci suuf fii mu defal ñu li nga xamante ni moom mooy commentaire ak avis maanaam soo su la neexee nga nga def ko noo xamante ni ñiy commentaire ci direct bi commentaire yi mën nay génn bañ na bañ a génn wala commentaire yoo xamante ni dafa am ay saaga ak yu deme noonu nga bloqué ko ak yu demee noonu waaw yooyu fii nga koy réglé fii ci suuf mooy ñi nga xam ne dañuy aimer diffusion bi maanaam euh, afficher le nombre de pour cette diffusion mooy yoru comme ni muy def suuf yi rek ngay afficher ñiy aimer ak ñi dul voilà yow bu la neexee léegi nga def muy affiché muy feeñ bañ a feeñ loolu xam nga jamono yi lañ ko changé ay jamono amul woon aimé ak ñàkk aimé comme bu doon amoon bi loolu mënoo koon contrôler mais léegi YouTube def na la ngay muy affiché wala muy bañ a affiché léegi foofu bu jeexee ñu ñëw fii xam nga ñoo ngi détail ñu ñëw fii personalisation bu ñëwee personnalisation fii chat bi en direct la su la neexee vidéo bi kenn du mën a chatee buy daw mooy discussion boobu di nekk à droite direct yi daw su la neex ko muy daw su la neex ko voilà fii mu defal la participation bi ñëpp mën a participer wala ñi abonné kese mën a participer ci chat bi yaay xool tam fii mu la neexee defal la délai entre les messages maam ñuy dugal message délai yi fii tam mun ko bàyyi am taxul na am importance voilà fii mu defal la redirection direct bi su jeexee ndax daa am beneen direct boo programme su dee am na beneen direct boo programme yaa ngi def direct tey am na direct boo programme bu waroon daw suba mun nga fii nga sélectionner direct boobu direct boobu feeñ nga sélectionner ko xam nga fii programme wu ñu benn direct moo tax dara génnul su doon daa am direct yu ñu programmé wala ay vidéo yoo xam ni daa war a daw ñu def ko euh, première te dawaguñu war ko dawal suba dañ leen feeñ fii su ko defee mën nga rediriger nga sélectionné vidéo boobu soo ko sélectionné kii seetaan direct bi su direct bi jeexee dañ koy proposé vidéo boobu nag am na beneen vidéo bu a daw jour tel pour boo defee na cliquer pour YouTube ko ko pour def promotion vidéo bu dawagul la léegi ñu ñëw fii monétisation bu ñëwee monétisation fii bu dee direct ba nga ko bëgg a monétiser nga cliquer fii activer la monétisation voilà active la monétisation pour direct buy daw publicité mën si di daw comprendre nga léegi la moo si topp ñu cliquer fii enregistrer voilà information yi ñu def léegi loolu jàll na mooy modification modifié nañ li nga xam ne mooy noonu lañ bëgg direct bi tëddee voilà boo xoolee si nga feeñ na fii di nga privé la comprendre monétisation activé comprendre que voilà léegi fii ñu nekk nii mooy fii parametre généraux moom la ñuy defal ji nga lien bi defal ñu RTPM lien yi et cetera voilà defal ñuy suuf latence bi fii mooy doole connexion bi connexion bu normal la wala connexion bu faible la wala connexion bu faible a faible la bu dee tey par exemple sa sa connexion internet dafa normal mun nga def fii latence normal su dee sa connexion internet waaw taxul moom doole noonu mun nga sélectionner latence faible parce que lii lu muy jëriñ mooy bu ñuy seetaan sa direct direct bi di bañ te tag léegi léeg nit di dawal direct direct bi su dawee tuuti tag su dawee tuuti tag parce que connexion mooy faible léegi nag YouTube defal fi option sa connexion selon doole bi ngay choisir option yi nga xamante ni xëy na dina tax connexion bi même bu leerul naa ñi dina fluide voilà léegi-léeg nga connexion direct boo xam day xaw a fulu mais du dagg léegi parce que parce que lu ma gën a leer gën a lekk bande passante voilà loolu la léegi boo defee latence faible mooy sama connexion daal taxul mu am doole voilà boo defee fii dafa faible faible ci suuf di nga boobu tam baax na ba léegi dina raw mais dina am façon vidéo yoo xam ne résolution yu mag yi di nga 1440 ba 4K du ko mën dawal voilà léegi ñu def latence normale fii voilà léegi boo xoolee fii données analytics bu ñu nee données bu direct bi daw fii la information analytics yi di génn yi nga bëgg gis ci vidéo bi yëpp comme ni ngay duggee sa vidéo YouTube dem ci analytics bi bu direct bi daw fii ngay dugg analytics vidéo yëpp da nga koy gis voilà activité spectateur spectateurs yi li ñuy def ci direct bi bi daw euh, chat bi maanaam di di discuter di commentaire di wax si si direct bi boo duggee fii yëpp ngay gis voilà fii bu ñu nee état flux maanaam connexion bi la lay wax neex na wala neexul dina la ko signaler fii su verte normal na neex na su orangé xaw na tane mi ngi commencé faible nànk-nànk mais mi ngi dem su rouge nag xamal ni ñu koy seetaan mi ngi dagg ci ñoom di dem di dem ak a ñëw comme fii comme lii ni muy def voilà noonu lay def fois voilà maanaam xam nga scène bi activé woon nañ ci merchandising nga produit yi ñu ci defoon mi ngi nii bañ doon wan ne nu ñuy activer merchandising voilà léegi fii produit yi mooy bu dee mën nga jël si sa produit yi nga placé leen ñuy daw ci li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy euh, direct bi direct bi di daw sa ay produit di defaale promotion waaw loolu fii loolu lay jëriñ mais fii dinañ fi ñëw defal ko vidéo boppam comprendre nga voilà ñoo paramètres généraux parce que tey euh, ni ngay régler YouTube bi lañ lay wan ak activer direct bi sa webcam si lañ bëgg a yem parce que dañ ko bëgg def vidéo point par point vid point bu ne ak vidéo boppam léegi expliqué nañ la lii la moo si des wax nañ la fii tam li fi nekk la moo fi des fii moo fi des après ñu dem lance suñu direct boo xoolee fii defal la autre paramètre lañ defal activer le DVR ji nga par défaut YouTube da ko activer activer le DVR mooy lan DVR bi mooy maanaam YouTube soo live bi di daw YouTube da koy di enregistrer en même temps muy daw da koy enregistrer comme même temps muy daw da koy enregistrer lu xaar live bi jeex koy enregistrer loolu lu muy jëriñ su nit ki di seetaan live bi su amee affaire bu mu romb su ko dee xam këli nga arrière su arrière mën a seetaan loolu ñëwaat dabewaat live bi fi mu toll su fekkee nag da nga ko désactiver live bi live lay nekk comme télé lay mel comme télé doo ko mën a avance doo ko mën a arrière da ngay seetaan rek waaw da ngay seetaan baa nga bañ a seetaan léegi nag fii activé wu day tax nit ki dina mën a arrière di di di di seetaan lu passé su paree ñëwaat fa direct bi toll continuer direct bi di dem loolu lay jëriñ voilà fii vidéo à 360 degré li mooy pour nga dawal ko il faut nga am caméra 360 dafa am caméra spéciale yuy def vidéo 360 mooy caméra yooyu nga xam léeg-léeg gis nit filmer ki ne copp ci digg bi mel bi dafa dafa nekk benn bul wër ko waa moo koy def léegi mun nga def direct yoo xam ni caméra 360 ngay utiliser su boobaa direct 360 fii ngay coché mais il faut nga am caméra 360 pour mu dox sinon boo yore caméra normal du dem voilà fii délai bi mooy pour direct bi soo lancé bala muy commencé daw ciitum naa temps nga bëgg ngu jël ko mën nga cliquer fi nga sélectionné 30 secondes wala une minute voilà mais ñun duñ ciy def délai dañ koy bàyyi noonu fii sous titre yi da nga bëgg muy affiché wala muy bañ a affiché maanaam tey booy doon de live bi nga koy wax ci benn làkk comme noonu ngay cliquer sous-titre mu koy traduire bind ci beneen làkk ndax da nga ko bëgg activer wala bëggoo ko activer par défaut YouTube activer wu ko parce que live moom xam nga ñi ngay waxal war nañ xam li ngay waxal la comprendre définir la diffusion en direct comme non répertorié une fois terminé fii tamit yaay choisir waaw af mun nga ko cocher mun nga ko bañ a cocher loolu mooy la mooy maanaam direct bi su doyee ba jeex ba pare xam a dafa war a nekk vidéo pour nekk sa vidéo sa chaîne mun na nekk public mun na nekk privé mun na nekk non répertorié YouTube ne la ko non répertorié su direct bi jeexee wala yow yaay kose fii wala nga bañ a kose mais mun nga ko bàyyi nii par défaut voilà comprendre léegi loolu mooy li nga xam ne moom moo aju fii ci studio bi boo xoolee xam nga fii mooy flux flux bi pour def direct fii gis nga boo doon utiliser ji nga sa webcam directement pour def direct soo fekkee jaarul ci logiciel maanaam su ma cliqué woon fii directement mais yii dinañ si ñëw benn par benn mooy yii ni ñaari yi dinañ si ñëw tey dañ lay wan rek li nga xam ne pour ñu bañ koo jaxase voilà <laughs> dinañ yii dinañ si ñëw incha allah voilà léegi pare nañ fii lu ñuy def dañuy dem lancer suñu OBS pour mu daw suñu live léegi nag bala ñuy dawal suñu live am na loo xam war nañ ko def muy xaaral ñu wàññi écran bi voilà pour bu ko defee li ñuy def mën a ñu mën koo gisandoo def ñu OBS bi voilà OBS bi ak euh, YouTube bi feeñandoo en même temps léegi lan la ñuy def su dañuy ajouter li nga xamante ni mooy benn source am nañ benn scène fii dañuy ajouter benn source comprendre nga suñu ajouter source source lan la ñuy ajouter périphérie capture video ñu cliquer fii soo cliquer su la neexee nga def ko titre su la neexee nga bàyyi ni su la nga tudd ko nu la neex comprendre nga voilà ñu cliquer fii ok suñ cliquer ok di nga automatiquement suñu webcam sélectionné wu na léegi gis nga ñoo ngi utiliser waaw ma xool caméra bi ñoo ngi utiliser léegi suñu webcam pour def live léegi nag am na benn affaire bu fi am léegi su fekkoon webcam bi image bii nii dafa leerul par exemple may dawal direct mais daal image bi fulu te webcam yu bëri du leer voilà euh, yor naa beneen ordinateur ba am ni webcam bi boo ci boo ko lancé mu def direct day am ay grain du leer voilà léegi wala daal qualité bi neexu la wala yaa xam daal am na tax daal webcam bi yow buggoo ko buggoo ko def wala ordinateur bañ a am parce que ordinateur bi nekk à côté amul webcam ordinateur bi am na webcam bii may defee am webcam mais bi amul webcam comprendre su doon nag direct bi ordinateur bi bi amul webcam laa koy defee léegi day soxla nag ma am ma am caméra wala ma am sama téléphone léegi nag vidéo bi ñëw dañ leen war na ngay utiliser sa téléphone mu remplacer sa caméra voilà soit moo xam sa caméra leerul wala sa ordinateur amul caméra voilà bu boobaa fii lañ ñëw sélectionner dem choisir li nga xam ne mooy beneen caméra bi ñu configurer léegi su fekkoon détecté wul dara fii ngay cliquer dem choisir sa cam dina feeñ fii nga choisir sa webcam comprendre nga soo choisir automatiquement image bi daa war a feeñ fii léegi image bi feeñ fii lan la ñuy def dañuy cliquer fii ok buñ cliquer ok gis nga webcam bi image bi mu ñu jox ñaata la dafa nekk 1280 720 moo tax feeñul écran bi yëpp te ñoo ngi choisir woon direct bi ñu bëgg def ñu ngi ko bëgg a euh, vingt 1000 1920 1080 kon il faut ñu xëcc ko tuuti sinon. bu dawee niiw lay génne ñu xëcc ko xëcc bi c'est simple dafal nañ ji nga point rouge yi voilà gis nga bu ñu cliquer fii mu dem boo cliquer ci objet bi gis nga indil na la point yi waaw pousse ko mu sës boo ci xëcc rek gis nga dina dina dem respecter résolution bi euh, normal léegi xëcc nañ yëpp ba mu sës léegi suñu direct lu muy xaar ñu activer ko kese jeex na parce que suñu teg nañ ñu image webcam boo xoolee vérifier nañ suñu micro mi ngi daw voilà périphérique capture bi di nga microbe dawul bii nga xam ne mooy ojo bureau bi voilà microbe dawul mais micro bii ñu ñu ñu def nii waaw mi ngi daw voilà moom moo nekk nii. fii tam c'est très important booy def direct bala ngay lancer yëpp da ko war a vérifier da ngay a yàkkamti ba def direct moom vérifier li nga xam lépp normal na bu lépp normalé nag lan ngay def nga ñëw fii cliquer commencer les streaming nga cliquer. gis nga lii bi ñuy configurer keroog muy boîte de dialogue bi ñu ngi ko doon wax man dañoo defoon option ni en suñu suñ defee accident cliquer fenn fu ñu warul cliquer balaa loolu di daw nañu OBS laaj ndax loolu lañ bëgg a def voilà parce que booy lancer direct normal daa war am boîte de dialogue sooy arrêté direct daa war am boîte de dialogue sooy def enregistrement daa war am boîte de dialogue parce que yooyu solo ko mën na cliquer mu dem te fekk yëgoo ko léegi mu demande nañu ndax wóor nañ da bëgg a lancer direct bi ñu ne waaw ñu cliquer wii ñu cliquer wii léegi gis nga direct baa ngi daw wan nañu fii verte na baax na am na relation ak YouTube. YouTube itam mi ngi léegi mu détecté euh, li nga xam ne moom mooy direct bi parce que commencé na def ay recherche voilà mi ngi nii bu defee recherche chargé ba ko détecté rek image webcam bi dina commencé feeñ fi ñu xaar voilà justement léegi nga direct baa ngi daw nii mais direct ma nag nii yéen ñii di seetaan vidéo bi da ngeen koy gis nii mais gars yi ci YouTube duñ ko mën gis parce que lu tax parce que mi ngi nii dama ko def privé waaw dina daw ci YouTube bi mais privé lay nekk nit ñi duñ ko mën a gis comme duñ ko mën a seetaan direct bi voilà te direct bi tam ji nga activé nañ monétisation ñoo ngi di nga si paramètres généraux ñoo ngi fi di nga analytics su amoon ñu koy seetaan dañuy commencé jox information fi ñaata nit a koy seetaan fan lañ koy seetaan et cetera activité spectateur bu fekkee ñi nga am ñu ngi commencé si commenté si chat bi fii lañ koy informé flux bi qualité bi nga xool fii ba xam excellent la def mooy verte na def excellent kon qualité internet bi qualité bi direct bi dawee baax na comprendre nga voilà te loolu moo ci amal importance voilà. léegi nag euh, nga nekk wax li nga bëgg a wax et cetera ci tey bul bu ñu bàyyi xel yaa ngi def direct ak webcam nii mën nga fi teg logo mën nañ fi teg logo fii muy daw ci YouTube bi teg logo ci OBS bi lañ koy utiliser mën nañ teg écriture fii écrital fii su suuf bokk euh, écriture yi défilé voilà teg écriture si suuf muy défilé comme télévision yi ñuy def mën nañ ko def comme si CNN ni muy def yëpp mën nañ mën nga ko si def ci obes waaw ñu bàyyi ko xel loolu nag dinañ si ñëw def ko lu nekk dinañ la wan niñ koy defee OBS li ñuy def yëpp ci logiciel Vmix mën nañ ko def ci OBS OBS sax léeg-léeg boo seetee moo gën a efficace Vmix mais Vmix différence bi mooy dafa gën a yomb utiliser mën ñu bëri dem ci waaw parce que Vmix dafa bëri loo xam ne ci Vmix dañ la ko defaral ba pare da ngay jël glisser déposer OBS nag maam du ay glisser déposer yow yaay xool li nga bëgg def nga def ko waaw dafay mel ni logiciel montage Filmora ak logiciel euh, première Pro. mun naa ko waxee noonu Premiere Pro yaay nekk di defar li nga bëgg a def yëpp yaa koy organiser ni nga ko bëggee bu dee Filmora yow yaay yow yaay glisser di déposer glisser déposer effet yu ci bëri doo ko créer glisser déposer la comprendre nga voilà noonu la mel rek voilà mais dinañ la won logiciel lim capable ci te ñun ñu xam ko si yëpp dinañ la ko won incha allah ba nga xam ne logiciel bu am doole la lu bëree bëri bëri mën na ko def ci li nga xamante ni moom mooy euh, live ci YouTube ak Facebook kon vidéo bi fii lañ koy yemale euh, bala ñuy dem dinañ dagg direct bi fii lañ koy yemale Euh, xam naa vidéo bii di ñëw incha allahu rabbi dañuy ñëw wan la nan ngay utiliser euh, téléphone mu remplacer webcam bi vidéo boobu du gudd parce que loolu rek lañ lay wan parce que war nañ la paramétrage YouTube bi ba pare léegi nag bala ñuy dem ah ju dagg direct bi soo ko dem nan la ñuy daggee direct bi OBS mën nañ ko dagg fii mais boo ko daggee fii direct bi day continuer mais image mun day dagg dootul feeñ waaw fii nga war a ñëw couper direct ba pare soo ko dem couper ko fii la ñuy arrêté direct bi fi ngay cliquer mun nañ ndax wóoral la nga bëgg arrêté direct bi ñu ne waaw dañoo bëgg arrêté direct bi mu wax ñu da nga koy dem modifier man da ngay dem modifier vidéo bi def ci ay option yooyu noonu ñu def fermer dañuy fermer voilà voilà léegi gis nga arrêté nañ suñu li nga am mooy suñu direct léegi lan la ñuy def dem OBS tam cliquer fii arrêter le streaming voilà mu demande ndax dañu wóor a da nga bëgg arrêté ñu ne waaw dañoo bëgg arrêté voilà direct bi arrêté na si OBS arrêté na si YouTube voilà kon nii mooy ni nga xamante noonu lañuy defee live euh, ak euh, sa li nga xamante mooy sa webcam ci sa ordinateur directement ci YouTube jërëjëf.